ñànku ñànku xam nga sa làmmiñ dafa rëy instant bi yaa ngi nii nii sa làmb nga Fallou Ndiaye lañ nekkal Fallou Ndiaye ngi nii toog promoteur oh, pare na yaa ngi nii toog. waaw gars yi Pawlish lañ la proposé bëgg nga wala bëggoo. Oh, Pawlish maa ko na xool nañ kanam. déedéet déedéet. Pawlish amul doole waaye. bul lijjanti loolu Pawlish mi ngi entraîné instant bi dafa nekk ci yoonu làmb <laughs> bo ñu jox la Pawlish waa wala déet. na ko daal su ko defee pour ga su ma su ma ko yi xam ni waruma bëri police. mais pare nga. bismillah pare nga. pare naa bu avance bi ñëwee doo ko delloo. indi avance. ah Fallou. Fallou loolu kay police may léegi léegi. pare nga. police xamoo sax foo dugg. xaaral woo ko xaaral. Fallou woo maa ngi nii ci bureau Fallou. Ah, ah. affaire bi amul affaire u xarit. déedéet. waaw ngay déglu rek business la. <laughs> maa ngi pikin nii. ñu pikin. <laughs> mu ne lan. su ma jegoon su ma am nga sax. moom fan la nekk nii. mu ngi yoof normalement. waaw waaw dama lay xamal ne la. <laughs> affaire faramaare nañ ko teg ne le. waa affaire waa ñu takku ne ba ma daan la ba pare. Pawlish nee na doo ko daan mënuloo ko dara. Pawlish. Fallou Ndiaye taxawal na combat bi de. ñaan ko ak Pawlish Mbaye. ah. man mën naa la mën naa laa sax ni ma lay daanee. dëgg boo koy reetaan da lay ñëw xam nga xam nga police comprendre xam nga daan Ouzin Keita nga xam ne Ouzin Keita mooy loolu. waaw waaw man nag su ma man dama lay jàpp bëreeg yow. du ma ko daan. waaw daan la daan boo xam ne après ñit ñi tam ñu ñu tëggal ma komba ak mbëri sax. waaw boo paree ci nga waat yi nii waat. waaw ci nii lay napp waaye yow booy yow assurance bi. ma man ma commencé gul signature. waaw taxal sa fit nag yow ci nii lay napp ci téléphone bi doo tax sa fit boo xam moom. yow fi ne yaa ma commencé napp bàyyi ma rek. yow mii tàggat yow yow naroo am ndam. yow nag nga léegi baax na nañ nan jàpp jour ñu daje bureau Fallou Ndiaye. bureau Fallou ñu ñu ñu signé. nga jël avance ma jël avance nga dem xool koo yaakaar nga dem ak say mbokk. ñu ngi ci arène nationale bi kay ñu ngi ci arène nationale bi Pawlish da ngaa waroon ñëw jël sa avance léegi xanaa yow wóoroo. barki sëñ Bamba waaw man kay pare naa man mi ñëw ba fii kay pare naa. taalal sa oto ñëw jël si avance. ñu ngi arène nationale rek Pikine noonu arène nationale. Canada. non ñu ci Canada Canada rond-point Canada. ñu ngi rond-point tribunal. waaw rond-point bi rond-point tribunal Pikine bi. waaw ñëwal ñànkoo ak Pawlish Mbaye ficelé ficelé ñànkoo ak Pawlish Mbaye mais mais ñànku man man moom Pawlish laa faral waaw man dama dama leen daan koy daan damay daan Pawlish yow sa soo bëggee ñu bëri <laughs>